ñu ngi nuyu donc euh, ñëpp suñu mbokk yi di ziar ñëpp euh, li tax ñu toog fi tey mooy union des magistrats sénégalais bi ñu njëkkee ñëw def benn sortie devant la presse dañoo xool ne yenn saa yi dina am ñu ñëw toogaat di waxtaanaat parce que dañoo nekk si jamono joo xam ne li ñu wax communication dafa am solo si réew. Nous avons fan yi ne dafa am justice Nous ñu ne euh, occasion pour ñun également ñu ñëw ak askan parce que euh, si jamono ji weesu dégg nañ ay kàddu yu nous ñu jëmale ko ci li nga xam soit si la soit justice ay parce que le rek.

loolu moo fa ne nga koy parce que institution bu justice kenn citoyen ñu sa daraja a taxaw ne diirante parce que euh, warul warul suufal justice baaxul si ñi ñi nga aussi borom bi magistrat yi nga magistrat magistrat juge du procureur yi ah, tamit si biir il euh, dafa am nu mu leen ont ba am na ne citoyen a kaw noonu ne mi justice justice pour ñëpp la até yombul ñu ñëpp xam ko boo de ñii dinañu kontaan ñii duñu kontaan balaa ngay atte tamit ñii dinañ kontaan duñu justice il faut que nous ñëpp ñu euh, nan la ñuy faire ak si anam la jëm ba euh, ku ñew si ñun euh, sey mbir ñu teel ci jóg mais li koy andi aussi il faut que askan ñu xam né nañu 17 millions sénégalais lañ si bir 17 millions yi magistrats yi 510 la eh bien 17 millions pour 510 ku def lool rek war nga mëna xam ni ñii li ñuy liggéey dina dem ba ëpp leen loxo parce que li ñu ku ñëw si tribunal bi tàmm ko rek di nga gis yenn saa ñu toog fii suba nekk audience jëmale minuit wala une heure du matin wala lu ko raw am na ñoo xam ne sax dañuy fanaan te si suba ko la ñuy tàmbale ndax dossier yu bari bu demee si cabinet d'instruction yi euh, juge yi ku si nekk li gën a tuuti presque si dossier booy yor mën nañ na 500 la jëm kaw te loolu bon nit benn nit mënul yore loolu yëpp si si liggéey ñu ne li nga war a def dafa war a gaaw certes li ñu liggéey métti na parce que dafay am jamono dañuy téye ay doomu aadama gënalul kenn ñu yàgg fa gënalul kenn mais il faut aussi nit ñu toog ñi nga xam ne ñooy acteurs judiciaires yëpp ñu toog ñu réfléchir ak ñu xoolaat parce que dossiers yi bari na magistrats yi bari wuñu te conditions yi ñuy liggéey aussi mayuñ leen euh, lu ñu bëgg ñu def ko si jamono yi ñu ko bëgg a defee. ciow day jóg ba euh, suñu mbokk yu si bëri dañu jàppee ñun ne dañ fi toogal euh, nguur wala lu ñu nguur sant ñu def loolu andul at suñu liggéey ñun parce que wax la boo xam day continuer di dem yàgg na nag affaire nguur nak moo mel noonu parce que ñun ñii yàlla def na depuis bi ñu nekkee di jàng ba tey xëj na dimbali na ñu ñu lu bëri mbirum

bi bi année blanche di am xam ne ñun ñii étudiant lañu woon politique moo tax ñun ñu perdre suñu génération benn at ba tey jii defe naa ne kenn nañu ko rembourser ak manat sama waa génération boobu ñu ngi def licence en droit coowum politique moo indi woon loolu coowum politique moo indi leneen at leneen si réew mi ñëpp teg si seen bët donc politique a bëri yëngu-yëngu ak riiru boppam te fu mu dem noonu lay duggee si riir mi lay duggee lay bëgg a yóbbaale ñëpp moo tax nag il faut que ñu taxaw ñu wax leen ñun ay fonctionnaire lañu ñun état du Sénégal mooy suñu employeur ñun état moo ñuy fay ñun nguur fay ñu ñun état du Sénégal mooy ki nga xam ne moo ñuy fay lu ñu bëgg ñu delloo si xel yi parce que du ku ne boo ñëwee si yoon rek la nga wax yaam dëgg dëgg ñun dañ koy seete ji te fañ koy seete jee du si wax bu Masamba di wax du wax du si lu Mademba di wax fañ koy uti jee mooy dossier yi ñuy jox ba mbir di am fekkee wuñu bu ñu defee enquête jox ñu suñuy suñuy kayit si loolu la ñuy sukkandiku pour jéem ne ñu ngi àttee waxuñu nag ne lu àttee noonu la parce que li ñu la jox rek nga mën a àttee mais dañu bëgg nit ñi aussi bu bu ñu dem ba nekk si dëkk boo xam ne lépp politique la. lu nit waaye lu lu lu nit def rek ñu ne politique la am na ñoo xam ne nag taamu nañu bañ a def politique seen àdduna te du ñu ay juge sax ñu ngi fii mais ku si nekk am nga si société boo si nekkee lii nga jël sa wàll nga bàyyi ñeen jël seen wàll ñu ne bés bu ne rek yaa am dëgg si kàddu parce que yow rek yaay wax